Now to begin with the Africa TV news. Now in the Gambia, a large crowd of youth earlier this week have gathered outside the Canifing uh, lower court premises to demand uh, for the immediate release of some 37 youths who are charged by the police for their alleged involvement in a July 24th protest in Serakunda. During the procession, one of them, Aliuba, said the government cannot continue on arresting young people calling the government as liar, saying he did not fulfill or they did not fulfill uh, the promises he made to Gambian people. We vote, and we are back to the same shape, and we still want to negotiate. Jame, so Jame he tested the waters he arrested people killed them nothing happened then he continued and when we allow this shit to keep going down it is gonna keep going down like this suñ bëggee ñu rey ñu ñu ñu then the whole fucking world would know that Adam Barrow's government is a dictatorship it is not right negotiate lane, dialogue lane, dialogue ba si Power respects power. This government has power, the people have power, and the power ultimately belongs to the people. Whatever the rule of law is these days, because every nonsense that they do, they use the rule of law argument. Every time, yeah, luwa bi makowa, dañ leen wara yobbu court. We agreed. Then leen a yobbu mile too. We agreed. Then dañ is the isiwaat code you you try to uh, uh, do the rule of law we agreed Legi, ñu ne ba octobre the high court bi cité lañ leen yobu. imagine if this was you ñu yobu la mile two for two months xanaa suñu yaram like what is going to happen to this country Yeah, we people died for this to end people went to exile for this to end killer is went into exile for this type of thing to end people people Gambians I'm in dara nga bëgg teg musiba tamit you want to show you want to give us this type of society that we wanted to escape from this president came to the Gambian people and told them I will come as a transitional president for three years and he lied because he didn't fulfill his promise to the Gambian people. Now somebody who has lied to you, how can you believe in anything that he does? How can you believe in his systems? How can you believe in his courts? How can you believe in his legislature? Nothing. Negative he bribe parliamentarians. How, how so are you that he's not bribing the judges? How so are you that he's not doing the same thing Jame did with our courts? Well, um Aliou Bah there, one of the uh, protesters um, at the Canifing Magistrates Court, of course, um, in his frustrations and, you know, um, all whatnot maam ji bi uh, saay mer na def saay na trop waaye keroog gis nga keroog ci Kanifing Court bi on Tuesday um, yeah Eh, gis nga maire bi gis nga xadar bi gis nga daal li nga xamante ne mooy eh, ndaw yi nuñ nuñ doon nuñ nuñ nu réacté woon daal ci ci xibaar buñ déggee ne you know the 37 youths are going back to mile two again for at least another month gis nga réaction yi nax nga jàngate wala nax nga déggee wax yi mu wax nguur gi bileem na leen nee na lii lañ fi xeexoon eh, waaw laaya jàmm nii la commencé woon ñu bàyyi ko ak yooyu waaye comme dégg nga li mu wax yëpp ñu ñoo ko déggandaroom so what's what's your own understanding ci li nga xamante ne wax na ko. waaw liñ ci mun a wax rek mooy euh, xam na ne ak ak yelleefu doomu aadama dafa bokk ci euh, démocratie. waaye démocratie bu nekk nag dafa war a sukkandiku ci nit mu teg ko ci yar ak teggin mm-hmm. li tax mu wax loolu kilifa réew ñëpp jël seen yaakaar ci yow jiital la ñëpp dañuy am njort bu rafet ne kilifa rek nga mën a doon kon mm-hmm. buñ déggee ndaw yuy fippu di gaaral kàddu yu tegginewul ñëpp dañ koy ñaawlu amaana tamit nag li am ci process bi ba yëf yi na mu demee ku nekk xam na ko ñu ngi ciy wax ku nekk ngi ci yëy yàb bi depuis on the 24 July lañ gisoon fippu bi amoon démb dégg nañ ñi ci indi seen gis-gis ku ci mel ni Niang Ndiaye mm-hmm. wax na ci tey bu ñu xëyee dégg ndaw yi tamit keroog booba ñëpp ci li nekkoon seen xol ak seen dënn mooy ne jàpp ne wax ak kàddu rek moo mun a saafara jëf ji exactly te jëf ji mënuñ koo jàpp ne mm-hmm. mun a saafara la ci fippu ndax boo déggee honorable Khalifa tam wax na ko nee na doole saafarawul lu bëri xel mooy jiitu ci liy saafara yenn fitna yi mm-hmm. ba ñëpp mun a méngalee seen gis-gis ñi ànd a teg yëf yi ci yoon ndax ndaw ñi kenn amutoon gis-gisu ne bu ñu leen jàppee dinañ tëdd kasu sax lu mat weer wala ñiy séntu ne dañ tëdd kaso weer ndax comme dégg nañ keroog ci atte bi ne ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk euh, at këru attekat bu gaay bi gën a mag ci réew mi mhm. ñoom ñu ngi ci li nga xam ne mooy holidays kon jamono bi lañ jàpp rek ne festa of octobre la ñuy séntu ne beneen atte dina am mhm. buñ gisee yenn ndaw yu nga xam ne ñoom wane nañ ci ni ko Aliou waxee ku mel ni kii la Is ak yeneen ndaw dañ demoon exil génn réew mi. waaw pour xeex lu mel nii comme ni nga ko waxee dafa am lu ñu doon xeex tamit ci nguuru jàmme mooy wàllu dictatorship bi. Mhm. wàllu human right on nga. jox nit ñi seen ak ak yelleef bu fekkee ñëpp loolu lañ votel in président Adama Barrow into office am na njort bu rafet ne nit ñi mun nañ ko wax seen kàddu ci yar ak teggin fekk du tegginewu ba ñuy dégg kàddu yu nga xam ne ku ko dégg tey da nga koy ñaawlu ci ne ndaw yi waruñoo react reaction bu mel noonu mm-hmm. jëmale kaddu yooyu ci njiitu réew mi waaye tamit am na njort bu rafet ne bu dee njiitu réew mi tam mu ngi dégg ci njabootam ak ndaw ñi loi bi ak li nga xam ne mooy justice nañ ko teg ci yoon mu yemale ñëpp comme démb bu ñu déggee ci kàddu yi euh, ki nga xam ne mooy Niang wax na ko jenn jëmm la ndaw yi yëpp jàpp ne moom moo indi fitna bi muy góor gi mbuub ak anti crime unit bi bu fekkee loola mooy indi gàllankoor bi te ñi gis ne ndaw ñi loola moo taxoon ñu fippu ban saafara lañ ci mën a def ba diisoo am ci diggante njiitu réew mi ak ñi nekk ci ginnaawam yore ay tànkam ci dox lépp lu war a rattaxal diggante askan wi ak nguur gi nañ xool saafara yuñ ciy def ba ñu fàggandiku fitna bi wax na ko tamit ci ne am na lu njiitu réew mi ak ñamu àndoona ci coalition woon ak yooyu ñetti at yi mhm. loola waral na sax mu wane ne kàddu yooyu noonu tax na tey ñëpp jàpp ne lu dëgguwul la ca nañ ko déggewoon ci njiitu réew mi ba ñoom ndaw yi ñuy fippu di andi gis-gis loola tax na ñu bëri ñu ngi bëgg a sukkandiku ci ne ndaw yi seen fippu ak fitna bi ñu gis nii dafa nekk ci ginnaaw taxawaayu tries jot na hmm. loola tamit lu jara leeral la bu dee ndaw ñi seen naw la yin jàpp moo li leen yitteel te loolu mooy li leen ñor nañu leeral seen bopp wane ne ñoom sukkandikuñ dara lu jëm ci wàllu politique ak taxawaayu politique ndaw yi nekk seen nawle doon xëy di ñàkk seen am wayjur yu yaakaar ci ñoom am njaboot gu yaakaar ci ñoom tey ñu teg leen ci benn place kenn mënut a dox ay yitteem hmm. luñ jara xoolaat la seet saafara bi ba fitna bi ñu fàggandiku ko am na solo xam naa balaa ñoo continuer foofu ba léegi in as much as tamit ndaw yi xëj na euh, xol yi jóg nañ euh, ay ay seen morom leen jàppate ñu ngi leen di xeexal si biti waaye tamit foog naa ni comme yëf yi mu ngi ci yoon te lu waa dafa sew Euh, xëj na léegoo léegi boo nekkee ci biti da li ngay jàpp ne waruta am wala du yoon euh, xëj na tamit boo demee ci ci luwaa bi donte ne sax xëj na ci gis-gis nekkul li nga xamante li war a am la euh, I think ne dafay am pour tamit ndaw yi ñu xam loolu ànd ak dal because comme na ko waxee doole fajul dara mm-hmm. li am solo rek mooy lu mel ni bu amee foog naa teey def ci am solo li nga xamante ne mooy liwaa lim la may ñu ànd ci loolu because keroog man man ngi fa woon looyaa bi mu ngi leen doon kaam sa di la waxal di wax ne ñoom ñi nga xamante ne mooy lu ñu war a def euh, ñoom nañ ko def because ñoom xam nañ li nga xamante ne loolu moo ci ne waaye xam naa frustration bi ak mbir mi nu doxee ñoom loolu moo leen métti ak tamit xëy na euh, seen seen seen xarit yi seen friends seen àndandoor yi euh, ñu jàppaleen ci li nga xamante ne duñ fiil ne du ñoom rek ñoo ko def soo xëy na loolu moo tax waaye whatever the case may bi ñu lu ñu advocate mooy peace lu ñu advocate mooy ndaw yi ñu dal ñu xam ne réew mi tamit luwaa moo koy doxal te whatever lu mun ta xew foog rek ñu nangu tamit Euh, loi moom foog foog foog mu jël its course lu mënta xew. Euh, foog naa loolu tamit dafa dafa am solo li ma la ciy dimbale rek mooy bul nangu ñu tooñ la nga mujj tooñ. waaw ndax lu tax mooy. bu mhm. fekkee dañ la tooñ te nga jàpp ne dañ la jaay doole boo bëggee jëfandikoo ñàkk yar ak kàddu yu nga xam ne tegginul mun naa dem ba tooñ bi ñëw këpp sa kaw. te wax nga ko am na ñu nekk ci taxawaay bi nga xam ne ñoom tam seen xam-xam màcc na ci wàllu loi. Mhm. jël nañ leen ñu nekk loya ñu nga xam ne ñoom ñoo war a saytu doxalin bi te ak ak yelleefu doomu aadama diggante ñoom ak magistrat yi ñu seqal ñoom leer na leen li tax ñi jël taxawaayu ndaw ñii mooy ne daan sukkandiku fu leer te wóor ba ndaw yi mën a jot seen freedom jot seen freedom mooy tey ñoom tuuma lañ teg seen kaw tuuma bi ñu teg seen kaw ñëpp wax nañ ko ku nekk gis na ne ñaawteef bi amoon on the 24th of July ba ñi lakk kër ki nga xam ne mooy góor gi mbuub di anti crime director ñëpp dan ko ñaawlu as a concerned citizen understand nga waaye with that sense understand nga tamit dafa am determination bu ci am ñëpp war a am expectation yi ne ndaw ñi tey jii li leen war ci taxawaay bii ñu wax ci yar ak teggin waaw loolu dafa am solo xel ak gis-gis mhm. ba ku leen dégg nawloo leen ci ne li tax ñoom ñiy wax dafa am fuñ sukkandiku ngir ñi bàyyi seen i wëllëre mhm. bàyyi seen wëllëre lenn la mooy comme ni nga ko waxee bu fekkee fukk ak fukki nit ñoo def waxoon nañ ko démb dañ koy bamtuwaat nga jàpp ci li nga xam ne mooy ñett bàyyi juróom-ñaari ñu doxi seen soxla ndax lu ëpp juróom benn téeméeri li nga xam ne moom moo nekk ndaw keroog ñun ñu ngi Serekunda ñun ñu ngi woon anti crime unit seen office bi understand nga gis nañ ndaw yee fa nekkoon ci takku kon ñooñu ñëpp tey bu ñu leen waroon a jàpp mun na noo wax ne ndaw du des ci réew mi bu fekkee jàpp nañ ci fanweer ak juróom-benn am na gëstu bu nguur gi di def ak ñi nga xam ne ñoo yore yoon pour xool naka la ñuy fàggandiku ñaawteef yu mel ni la amoon. ba ñu saytu ko ba lu nu mel du amaat. waaye ci biir loola tamit bu ndaw yi nangu ne ñu ngi gëstu ñoom ñi bëgg a jël yëf yi ba nguur gi am fu ñuy sukkandikoo mm-hmm. ba ëllëg. dinañ am sernde yu leer te wóor ne lii moo taxoon ñu jàpp fanweer ak juróom-ñaar yii te bokk na ci ñi sukkandiku ne bañ leen jàppee am na yeneen kàddu yu jóg ak yeneen fitna yu ñuy won ne lii moo nekkoon ci ginnaaw lu tax ñu jàpp ndaw ñi. all right so ndaw yi war a bàyyi xel la. waaw mu ngi noon daal foog naa ne euh, li am solo la xam naa ne du du ñàkk ñu del si next euh, you noon beneen yoon ci li nga xamante ne mooy ci développement bi ni because affaire yi moom jeex